wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat di siyaare ki nga xam ne it mooy ki bi di soxna Bintu Mbàkke mi nga xam ne mooy ki xam ne moo nekk si bopp mbooleem liggéeykati Touba ca kanam yëpp di ko jaajëfal moom mbooleem mi àndal di jàmbaari Sëriñ Touba ak mbooleem ñu ko si ñëpp jotaay bii da koy amal waxtu nekk chaque weer moo ñim ànda di liggéeyal sëriñ Tuubaa ci Tuubaa ca kanam te tasaaroo ci biir dëkk bi ak ci biir réew mi fukki fan juróom yu nekk ñu dajaloo fii ci sëriñ bi ku ne andi li nga dajale ci ci àddiya mu jël ko yóbbu ko ci liggéey Tuubaa ca kanam bi suñ koy def ba mat fukki weer ak ñaar moo waat mbooloo mi mbooloo mi woo ñen àndal mu woo ay soppeem ak i mbokkam ay kilifaam ak ñëpp yu ñëw teew mu gaaral ñi mu àndoon liggéey bi ku nekk li nga liggéey si at mi ni mu toll mu leeral ko ba mu leer leeral digganteem ak waa Touba Kanam gi nga xam ne ñoo ko def jëwrin mu jiite mbooloo mi li jaar ci loxoom li jóge si Touba Ca Kanam jaar si loxoom ñëw si mbooloo mi loolu mu leeral ko mu nekk jotaay boo xam ne it jig na lool Touba ca kanam ndax loo ko tàmbalee si 2017 jaar si 2018 2019 ba ni ñu nekk si 2020 saa suñ jugee si jotaay bi balaa jotaay bi jël siwaat danañ gis ak yokkute gu mag a mag si Touba ca kanam ci fànn yëpp nag kon loolu it ñu ngi si jëfal soxna si bu baax a baax di si jaajëfal mbooloo mi. xam naa ma njëkki kàddu yi ma soxna bi mu waxoon. doog a ñëw ci kàddu Touba ca kanam soxna Bintu nee na ginnaaw bu mu sante yàlla sant Sëriñ Touba sant way joom wu tedd wa Cheikh Habibullahi ak kilifaam gu baax gam ko yëkkati woon teg ko ci loxoom di Cheikh Sohaïbou gannaaw bu sante ñooñu ñëpp cant ga yàlla ci ñoom di ñaan seen dawa ak seen bawki di leen ñaanal itam suñ doomam yokk leen ay daraja ak leer fañ nekk mu ngi sant mbooleem mbokk yépp sant tàmbalee sant gi nag ay kilifaam tàmbalee ko ci njabootu sëriñ Habibu ci njiitul sëriñ Seexuna mi nekk ci bopp ba ak sëriñ Bésir moom sëriñ Abdul Majid mi nga xam ne léegi la fi jóge ak mbooleem njabootu sëriñ Habibu gépp waaye nag di beral ak cant it yi nga xam ne mooy kilifaam di kilifa boppam Serigne Bassirou moom Serigne Habib mi nga xam ne ci ëttam ba mu tàmbalee liggéey bi ba tey ci ëttam bi la koy defee te su ko newoon bu mu fi amee du fi am li liggéey bi ba mu ciy tàgg bu ko ci dugg du su ci duggee di ci liggéey ba am ci ndam lii mu li fekk ci ginnaaw yàlla ci jàppale Serigne Bassirou la amee ak ci mbooleem njaboot sëñ bi moo tax mu waxoon ma ne. cant gi naa ko ci jiitalal njabootu sëriñ Habib tàmbalee ci itam ci soxna yi soxna Loota Mbàkke ma nga xam ne mooy suñu kilifa yàlla dogal na njabootu sëriñ Habib gi fi nekk góor jigéen moo ci mag ca lay tàmbalee cant gi bàyyiwu ca kenn ci soxna yi ñoom ñëpp ñu ngi leen sant góor ñi noonu ma ko waxee waaye noonu lay sant njabootu sëriñ Habib gépp muy taalibe yi ak bokk yi ak wëllëwe yi ak bokk yi nekk ci daara sëriñ bu nga xam ne ak wëllëwe ak jaar ci daara ji moonu boole ak ñoom ñoom ñëpp mi ngi leen sant ndax ku taxaw nga ci jàpp nga ci noonu lay sant njabootu kër gi muy soxna yi nga xam ne ñooy soxna yi ay càmmiñam ñoom ñëpp mi ngi leen sant cant gu mat sëkk ndax kenn ku ne jàppale nga ko ci bis bi jàppale goo xamante ne ak jàppale mënu ko weesu taxaw ci ba lépp sotti waaye nag muy sant it mbooleen nag jàmbaayu Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne nag ñoom la ànd liggéey bi ñooñu moom seenu cant lot na ci tudd ko ci làmmiñ xanaa dañ koy yéene ci ab xol bi fu mu yàlla ñooñu moo tax man ca àgg kon nee na ñooñu moom mi ngi leen di sant bu baax xëy na Serigne Mahdi yu Diop lim na ci kenn ko ne lam joxe donte xëy na am na beneen jataay boo xam ne buñ ci àggee xëy na li am ci at mi lépp te lañ koy waxe waaye moom mi nga xam ne nag moo doon jëflanteeg ñoom ba at mi toll ci dee yàlla na te jaadu mu daje ak ñoom gaawal seenub liggéey yëkkati ay kàddu yu cant yu jëm ci ñoom kon soxna si nee na mi ngi sant mbooleen koo xam ne mas ngaa ñëw fii ci moom dagg jël fi ab bol jaay wala mas ngaa ñëw fii ci moom dagg fi aussi Touba Kanam ak foo mën a nekk ci àddina bi soxna Bintu nee na ngi lay sant cant goo xam ne am na ak tàmbali waaye amtu yam kon kàddu soxna Bintu kàddu yi cant rekk li ci des nag muy kàddu yu Tuubaa ca kanam di kàddu sëriñ Habibu ñu koy tàmbalee ci gannaaw buñ ñu santee ñi war yàlla ci sant ñëpp ba noppi Tuubaa ca kanam yëpp danañ maase sant soxna Bintu te ko seeralee bokk yi fi nekk yëpp ndax ak njàmbaaram ak pastéefam ak itteem ju kawe ci liggéeyu Tuubaa ca kanam ndax liggéey bii kat teew bañ àndee dem ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa maa sëriñ xëy bu bokki taalibe yi ñu ànd yoon yëpp bañ demee bañ koy bàggal kàddu yem ca waxoon lu yomb la lu mën a gaaw la waaye itte ju kawe moo koy maye itte ñoo koy dox xaw dañuy am jot jox ko itte soxna Bintu nag moom daa bàyyi léppam nekk ci Touba Ca Kanam ñëpp xam nañ loolu mën nañoo seere loolu ku ko xamoon ku ne xam nga ne soxna Bintu amatul jenn itte amatul waxtaan amatul benn yëngu bu génn Touba Ca Kanam ay a koy seere li téem jëpp mooy Touba Ca Kanam foo ko fekk ci Touba Kanam lay wax foo ko séen muy dem ci Touba Ca Kanam lay dox loolu nag wax dëgg yàlla su ko defee baax ci waa Touba Kanam yi amee nañ ko ak cant goo xam ne lott nañ ci wax ko ci aw yi waaye nag ci tax mu ci sonn moom ñi mi wut boor dafa am pay ku ko sonnal bu pay gi ñëwee nga xeet jëf ji yàlla na ko sëñ Touba nangul te nangul na waaye nag moom yi la ñuy sante mboolem soxna yi nga xam ne ñu ànd moom liggéey bi soxna yëpp ñu ngi leen sant ak soxna yi Touba Kanam yëpp nag ak fu ñu mën a nekk ci àddina bi ñu ngi leen sant ndax Touba Ca Kanam kat dafa mel ne soxna yi ñoom ñoo ci man loolu moom yaakaar naa jotaay bi yooyu tegtale na ko bi ñu ñëwee ba toog sëñ Basiiru mi laaj na ma ko mu sëñ Habibu ne ma wax naa Touba Ca Kanam moom soxna yee ci man ma ne ko fopp sax ñoo ci man bu dee laaj ñoo dàq joxe bu dee woote ñoo dàq wuy si bu dee liggéey ñoo dàq liggéey loolu nag mënee su ko weesu kon soxna yi nañ gën a takku ci liggéeyal sëñ Tuubaa ndax kenn ko rek ñàkk wa nga ciy def ak sa alal ja def mën naa doon sawlay bu ëllëgee sa digg ak sa borom ngir sëñ Tuubaa kon loolu ñu ngi leen ko ci loo xel bu baax a baax ndax yeneen yiñ gënoon a xam ci jigéen ñi ay natt yeeg ay ndeyal leeg ay nangam nangam yooyu ñu ci ñàkk ay million fab sa benn dërëm def ko sëñ Tuubaa gën junni yoon kon nag képp ku am tawfeex mën a fab sëb dëwum di ko jëf sëñ Tuubaa waa ngaa sant yàlla waaye waa nga koo yokk bu baax a baax ndax fañ jëm kat sëñ bi dafa dafa doy te sëñ Tuubaa mas naa wax ne ni ngeen xam ne kat ñaar yi ñuy wax amul àddina àllaaxira la am muy mawwu mawwu ak fooyu sëñ Tuubaa nee na ñaar yooyu amul àddina àllaaxira la am daan ne foofa ku fa sa lu baax jeex amatoo la def lu mawwu ndax kenn ku nekk la ngay jëf moom ngay dunde foofa bu sa jëf jeexee tàkk nag amatoon nooy def da ngay mawu képp mel ni mbëtt ci paxam dootoo génn jëm fenn ndax amatoo jëfandikoo kon nag da ngay yooy su boobaa mu ne ana fooyu fooyu yi tam foofu la am ndax boobaa kat lu fa am lu mu bari bari da ngay fooyoo moom ndax xamoo kañ la bis penc yi taxaw daan na xelu boobaa nag xelum kenn du daj ñaan sa kenn ca lam yor xelum kenn yi du daj maye fa kenn ca lam ndax ku ne la nga am jàpp nga ne fii bis bi penc ñëw xamoo ba xam kañ la ca doyal yàlla ñëw te xamoo ba xam boo ci sompi may dana fi jeexam ne kon boobaa li fi des mooy da ngay fuuyoo la nga doon jëf foo xam ne nag dara du fa doy te loo fa jëf fekk ko fa boo nekkee fi nga ko jëfee dangay bàyyi xel lool ndax jëf moom ku xas faatu sa jëf dog na la yeneen la yàlla fay fekk si mooy loo def bàyyi ko fi loo def bàyyi ko fi nag kon kon bi ngay dund nga ko mën a def ba demee doo ko fekk wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda Allahi luñ jiital rek ñu demee danañ ko fekk muy aw suñu borom waaye loo defut nag mënoo ko faa fekk wa an laysa lil insaani illaa maa sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura kenn ku nekk la nga jëf rek ngay gis te boo ëllëgee te lool rek ngay jàpp kon nañ bàyyi xel bu baax a baax ne li ëpp ci sunu dund njariñ daal dafa jiitu wu ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ñu ngi soññi ñëpp ci ñu gën a yokk suñu itte ci liggéey bi di sant nag waa Touba ci kanam gépp moom bàyyiwuñ góor bàyyiwuñ jigéen bàyyiwuñ mag bàyyiwuñ ndaw képp ku bokk Touba ci kanam ak foo mën a nekk ci àddina suñu bi bu nee na mi ngi lay sant bu baax rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñoo liggéey bi di ci sonn waaye nag ginnaaw bi si soxna yee ñu ci sant soxna yi bu baax a baax xëy na nag man dama bañ a dugg ci ab lim ndax lim fàtte dafa yomb te ñëpp dañu ay jàmbaar te koo tudd mu mel ne moom rek mooy jàmbaar waaye ginnaaw soxna Bintu mooy seen jëwiñ waaye ku ne xam na ne kenn benn loxo mënul dawal suñ ko jàppale wutoon amul ñu àndal lii am du ma a kon nag ñi topp ci ginnaawam di ko jàppale ñëpp ñu ngi leen sant waaye nag ñi soxna Bintu doon a jëw ci soxna yi la yeneen soxna yi yoo xam ne daa am ñu boot seen ginnaaw ñooñu du ma ci tudd di lim waaye kenn ku nekk xam na boppam ña topp ci ñoom xam nañ leen ñooñu ñëpp ñu ngi leen di sant cant koo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amu fu mu yem di ñaan yàlla yal na ñu yàlla defal tawfeex ak ndimbal ak ndam ci liggéeyu sëñ Tuubaa yi ngëwamu sëñ Tuubaa liñ yàlla na nu ko ci yàlla defal ci barke Sëriñ Touba lu ci waaye def ci aw ñaq yàlla na lu ko Sëriñ Touba nangu. am na ci koo xam ne bolog ba dafa taw tawte ci ndoxam ci ndoxam taw mi ay yéreem wala këram wala ngaan bolog ba tàbbi ca biir da koo foto yónnee ma ba nag boole ko fukki junni jox ma ñeent fukki bolog ak juróom-benn yoo xam ne yëpp jot naa ci xaalis bi te gisuma bolog ba te mbooleem ñu ko joxe ay soxna lañ yoo xam ne dañuy góorgóorlu ca marché ba di xëyee ko gont te daanaka bu ñuy xëy duñu bàyyi ab dépasse seen kër waaye ku ci wàcc bolog ko fay kon sëñ bi ma bëgg nga ñaanal ñooñi ak ñi mel na ñoom ñëpp ci Touba ca kanam suñ borom defal leen àddina ju jag ak àllaaxira ju jag nga fajal leen seeni aajo Touba ca kanam daal ma sañoon jigéen ñi Touba yii ak mboolem ku jigéen nekk te yëngutu ci Touba ca kanam sëñ bi danañ leen dimbale bu baax bañ yëg ne ñu ngi sonn ñaareel bayit may nett li leen li ma tax mel nii ci Touba ci kanam xëy na sax yàgg naa koo nettali am nañu ko dégg ñu bari waaye am nañu ko mus a dégg ma bëgg koo nettaliwaat ngir soññe ba ku fi nekk di góor ak jigéen bu jógee mu delluwaat te xam ne liggéey bi lu suñu borom ngërëm la ndax keroog bañ ma ko njëkkee wax damaa gàntu ne duma ci dugg ñu ne ma lu tax ma leen damaa ragal jiite luy nuroo xaalis ba ma demee kër sëñ laat mu tegal ma audio sëñ abi bu mu doon wax ku ma bokkal pas-pas woo naa la keroog laa bi ci liggéey bi yëkkati sama ñetti junne ñeenti téeméer jox ko ne ko jox ma ñaari bolok ma dem essin yi su jaree danaa la ko verser su jarul nag ma delloosil la bi may egsee sama kër teg bolok yi ci kaw coiffeuse bi dugg ci wanag bi jàpp te boobu julli naa gee ba tëdd defe na bi ma jàppee ba nopp damaa julli ñaari rakka daa tàll sama loxo ne yàlla suñu borom liggéey bii feeñ ci Touba ñu ko di wax ñu di ko wax Touba ca kanam su fekkee loo gërëm la te sëñ Touba gërëm na ko yàlla nag ma ci def jëwrin su fekkee du loo gërëm te du sëñ Touba gërëm yàlla nag ma ci génnee ba ma set maag ku ma bokkal pas-pas tifle raay ci sama kanam tëdd ba set ma xëy jël bolo ya di wër sama tànk booba nii jigéen ñi def ni laa daan def kër gu ma dugg leeral la ca kanam nga dagg di ko def ba ñaari bolog yi amul fukki sama amul fukki fan sama loxo daal di jeex keroog bu ma njëkkee woote réunion ci ëtt bii fukki junni laa fi jaay réunion ba ca topp ma am ñaar fukk réunion ba ca topp ma am fernoyet ba ca topp ma am ñeen fukk noonu lay yokk ko boobaak léegi musuma am benn réunion boo xam ne lu li sama versement dafa yokk ba ci réunion bi réunion bi mujj bii 4 million versé naa ko ci genn ngoon récolté naa ko ci genn ngoon ñuy dox bañ ne soxna Bintu jigéen ju yëngu Tuubaa ca kanam biir réew mi bitim réew mooy seen jëwriñ kon mel na liggéey bi sëñ Touba gërëm na ko ndax nii laa ko ko ci gilewoon kon ma bëgg yéen jigéen ñi ngeen gën a feddal seen laxasaay te gën a góorgóorlu te xam ne lu ngeen ci lifu doyut lu ngeen ci def rek doyut ndax fii ab jaar li ñuy ñaan yàlla nun ñëpp nu fekkewaat ko na gën déwén waaye yàlla rek a xam te ku fi jógee bu dara desul lu tekki bàmmeel soo sañoon di liggéey ko sëriñ kon fii ngeen ko mën a tàmbalee na gën a feddal seen laxasaay ñi ne ci biir réew mi ak ñi ne ci bitim ak ñi ci biir Touba ñëpp laa ko yóbbandi di sant góor di sant jigéen jërë ngeen jëf yaa man sualu xayrihi indi dalal uskuntuli bi karamin yaa sol jalal yallaahu yaa xaribu yaa mujibu salli ala allasi bi tujibu yallaahu yaa xaribu yaa mujibu salli ala allasi bihi tujibu sayidina silmuhjisaati bi salaam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 misras mi abi jaayi xayri ma nabaat